ci ay simili yu ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet ci réew mi. li ma laaj dama ko jaarale ci ñi fi rek waaye maa ngi koy jàllale ci l'ensemble du peuple sénégalais rawatina yéen la jeunesse tey ñi fi nekk échant ñi fi nekk nii tubarfkala macha allah.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 Macky Sall du gor Macky du naxante moo ko fi jële amul kenn Sénégal du kilifa diine du mouvement citoyen du parti politik du mag du ndaw amul kenn ku Macky Sall respecté faalewul kenn bëgg moom ak soxnaam ak i doomam ak ñi ànd ak moom loolu rek la xam jàpp na ni keneen ku dul kooku ku mu mun a tër rendi la fees la jaay yàpp ba wala mu seddoo ko moo njabootam toog jàpp njàmburam moo tax ku mel noonu yàgg naa leen ko wax rapport de force la Macky Sall xam bu ñu xeexul ak Macky ñun ñii ñëpp Macky Sall dina jaar suñu kaw moo tax nag bu dee pare ngeen pour xeex bi na ngeen xam ni bii paa buñ ko doore amul taamoor amul dellu gannaaw te xeex bi nag ay niveau la ay degré la premier degré bi xam nga men booy mooy ban mooy dem leen bindu ci liste électorale yi parce que tappale yi muy def yëpp pour bañ ndaw ñi dem bindu ci list yi la nee na un mois la koy def waaye boo calculer ba ci biir matul sax vingt quatre jours ndax boo génnee dimanche yi génne fête yi matul sax vingt quatre jours moo tax bu leen toog ba dernier moment ngeen di jóg bu ñu nee ubbi nañ ko suba dama bëgg fépp fu ñuy bindoo mu ñuul kukk ak ay nit ndaw ñi fees fa dell dem bindu ji mooy premier degré xeex bi deuxième degré xeex bi mooy Macky Sall nee na am na ñoo xam ne duñu doon candidat fii en 2024 xam nga suñuy wax xam ngeen ma mi di wax ak yéen ba fi ñu taxaw nii on est à onze mois d'élection présidentielle ba fi ñu taxaw nii candidat la waaye sama mag jii toog di Khalifa Sall Macky Sall jaayoon na ko doole 2019 nekkul candidat ma ne leen Khalifa Sall day doon candidat parce que dootuñu nangul Macky Sall muy tànn kan mooy dem élection ak ku dul dem Macky nee na te yaakaaru lu dul justice magistrat yi waxaat leen ko magistrat yi moytu leen seen bopp parce que réalité politique yàlla def ko ay millions de sénégalais topp ci yow benn magistrat nga ne maay dem toog sama kër moo xam Macky Sall da jox xaalis wala dalaa jox promotion wala dalaa xoqatal nga ne man maay tere kii nekk ma euh, candidat bu kooku nekkul candidat yow sa nekk ci réew mi dina jafe bu newul candidat sa nekk ci réew mi dina jafe magistrat moomu leen senegal kenn du fi nekk naa leen ragal leen yàlla parce que xamu leen ko seen yoon newu ci waaye comme nag da ngeen di jaay ni soo waxee ñu ne force restera à la la loi est la loi du peuple que Donc force restera au peuple sénégalais. man de dinaa leen wax man Ousmane Sonko dama décidé xeex lu xeex bi laaj rek dinaa ko def nu mu laaj dinaa ko def président xalifa sal bi mu tollee yi ma tolloon dafa bëggoon a won sénégalais yi ni moom homme d'état la bëggoon sénégalais yi ni moom républicain la bëggoon sénégalais yi ni moom dafa gëm institution yi ñu taxañ ko laxas ko justice jaay ko doole ñu tere ko mu nekk candidat moo tax ma ne leen man institution Macky Sall faalewu ma ko république u makisal Sall faalewu ma ko justice Macky Sall faalewu ma ko parce que ñoom parce que ñoom ñooy les hors la loi dans ce pays ñoom ñooy les hors la loi ñoom ñooy jël la loi jël les institutions jël la république mettre ko au service d'un parti politique d'une famille et d'une personne moo tax farata ñu xeex ñooñu ak xeex bi lu mu laaj ñu jàmmarloog ñoom farata la moo tax ma ne leen sama discours du weesu loolu de les hypocrites yi toog fële naa nitu fitna lañ j'assume man je l'assume je l'assume ba fu mu yem ndax ku fi seetaan gis nga ku fi seetaan ba ñu def la li lay def ba pare ñi ñëw ñëw di la jaay ay naan ñoom ñooy les républicains ak di la jox conseil fi ñu toog la ñuy toog naan ndeysaan prison sax la fa seet si mbokk yi on s'est beaucoup battu pour un projet te projet boobu mooy sauver le Sénégal ay at juróom-ñeenti at ñuy xeex joxuñu ñu nit xaalis sàcc ñu xaalisu réew mi joxe ko digguñu nit ñi lu amut waaye dañoo bokk ak yéen ay xalaat ci li war a defar réew mi jële fi nger ak sàcc xaalis jële fi nooteel gi nga xam ne noot nañ ko senegal dog jag mbuumu jaam gi delloo si alalu réew mi ci réew mi séddale ko ci séddale bu maandu lii lenn la ci suñu projet bi ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex biñ koy door matuñu woon fukki nit di waxtaan ak sénégalais yi ngeen koy gëm ba tey mu yegg si fii nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ne bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla kenn mënuñu tere jël réew mi. Macky Sall Macky Sall ak quelques magistrats ne ñoom ñoo am fitu ne li askanu li ëpp li ëpp ci askanu Sénégal li ñu bëgg ñoom dinañ ko tere. moo tax ma ne leen Macky Sall fii mu toll nii ci ñett la yaakaar mi ngi yaakaar ci ay milices jël na ay nit ñun xam nañu ñan ñooy recruter ministres yi xam nañ fi ñu dëkk yor nañu seeni information yéen jeunes yi laay wax bis bu milice génnee song fi ay nit fu ñu munti nekk fekk leen foofu ba ci seen biir kër fekk leen foofu te li gën a yéeme les forces de défense et de sécurité xam nañ milice yi de am na milice yoo xam ne ñu ngi ci biir police bi te kenn du leen jàpp ñun bi ñuy wax gatsa gatsa police ak gendarmerie taxul ñu wax ko de waa APR lay wax si vous avez quelque chose entre les jambes bàyyi leen police fële ngeen bàyyi gendarmerie fële ngeen génn jàkkaarlook ñun. APR laa wax de ñun xeexuñu ñun yoruñu armée yoruñu ay ngàndaay songantewuñu ak police ak gendarmerie lu dul ñu war a def suñu manifestation police ne du fi amee ñu ne dina fi amee ñu def li ñu war a def mais su weesoo loolu ñun bi ñuy wax gàtsa gàtsa xam nga ñan la ñuy wax c'est poltron de l'APR sàcc xaalisu réew mi dem di fay ay milices foog ni loolu mun na leen sauver yàlla xam na ni bu police jóge woon fii gendarmerie jóge fi ñoom ñëpp ñu génn réew mi dama ne réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en mais yeneen réew yi ko def gënuñu ñu gënuñu ñu wallahi yéen laa koy wax la jeunesse deux mille vingt quatre ñu soppi réew mi deux mille vingt quatre changement commencé fi ba faw deux mille vingt quatre yorin gu ñaaw gi ñu yor réew mi jóge fi définitivement loolu nag lañ leen bëgg a xañ est-ce que ngeen ko nangu moo tax ma ne leen le 14 le 15 le 16 autorisation ou pas ñun ak Macky ak justice am ak police am ak gendarmerie fii ci réew mi police laay waxal ak gendarmerie ñoom xam nañu ñan ñooy les milices ñemewuñ leen jàpp te pourtant léegi balaa ñuy commencer meeting bi jàpp nañu kaba bi dëkk fii Parcelles Assainies police jël si na ko mi ngi commissariat central suba ñu xëy ne terrorisme lañ ko attaqué ñu ngay wër seen renseignement généraux naan dañoo jëlee ay nit Casamance andi leen fii ñii nekk fii yëpp waa Ndakaaru lañu waa Casamance ña ngay manifester Casamance waa Mbacké dinañ manifester Mbacké waa Ndar dinañ manifester Ndar kenn importé wu fi ay nit Macky Sall nag li ma koy wax du bëri dafa jeexal tak tak tak ñaar moo am Barthélemy wax na ko na rafetal demam ni Ablaye Wade demee woon Abdou Diouf demee ko mu dem bàyyi ñoog suñu réew ci jàmm defu ko nag ah Cheikh Tidiane yu wax Cheikh Tidiane yu wax na ko de demam dina ñaaw lool lool lool dina ñaaw lool may lancer nag un appel à nos de défense et de sécurité ñun li ñu gën a am li gën a li gën a sacré ci Sénégal mooy armée sénégalaise l'armée sénégalaise moom la sénégalais bëgg kenn ku ne ci ñun buggoon na nekk soldat kenn ku ne ci ñun buggoon na nekk soldat ñenn ñi jot nañ koo nekk comme Déthié ñun ñii essayé nañu concourir sax buggoon nekk soldat parce que amul lu gën a jekk joxe sa bakkan ngir sa réew armée sénégalaise boobu yàgg naa sauver Sénégal yéen a ngi fàttaliku mai ab professeur Ablaye Bathily mu ngi ñuy fàttali lettre bi nga xam ne général Jean Alfred Diallo moo ko bindoon président Senghor ne ko l'armée ne te laissera jamais marcher sur le peuple te lii ak lii ak lii na ko bàyyi lii ak lii ak lii ak lii ko def loolu mooy l'armée sénégalaise armée boobu mooy le salut du Sénégal à cette armée là ma ne leen bu ngeen nekkee dans les tranchées en Casamance ou partout dans le monde nekkalu leen fa Macky Sall peuple sénégalais ngeen fa nekkal président dem na président ñëw l'armée demeure c'est une armée républicaine c'est une armée du peuple sénégalais bu dee fi ñu jëm Macky Sall bëgg na def ni mu def nous demandons à l'armée de jouer son rôle comme ni mu ko mës a jouer te xam nañu nag li xewa ah, ndax Macky Sall li muy bëgg a def ci biir armée bi depuis quand aide de camp aide de camp kañ kañ la musa doon général ci armée bi aide de camp président de la république jël benn aide de général général Sélé Maysa Sélé bugg koo teg ci kaw semga bi nga xam ne sax moo jiite armée bi parce que rek am na lu mu bëgg te suñu armée républicaine bi du ko mus nangu je dis à l'armée vous avez le soutien du peuple sénégalais restez une armée républicaine restez auprès de cette jeunesse restez auprès de ces femmes restez auprès de ces personnes âgées le Sénégal vaut plus et vaut mieux que Macky Sall gendarmerie nationale maa ngi leen di ñaan ñu delloo ci seen xel fi mel ne ku dem cité kër góor gi ni ma toog fii rek xam naa ni lu ëpp 1000 gendarme ñu ngi ko yóbbu cité kër góor gi nañu delloo ci seen xel ñun gendarmerie mënuñoo tere egg fi ñuy egg police mënuñoo tegg egg egg fi ñuy yegg parce que le peuple sénégalais est le seul souverain te kenn mënu koo tere yegg nañu bàyyi di essayer topp Macky Sall dans son aventure sans lendemain le Sénégal vaut cent fois mieux et plus que Macky Sall et son petit groupuscule la gendarmerie n'a qu'à rester une gendarmerie républicaine la police n'a qu'à rester une police d'État te ñu bàyyi seen tappale yi ñu nekkee nii mbokk yi jamono di yu jamono discours yu bëri le 14 def nañ suñu meeting newoon nañ leen dinañ ko def ci nii wala ci nële le 15 manifestation sur tout le territoire national le 16 manifestation sur tout le territoire national te ma leen dànkaafu nak ñoom kenn du ma tànnal man ban yoon lay jaar loolu loolu buñ ko buñ ko dugal ci seen bopp fu ma neex lay jaar ci ndakaaru nu ma neexee lay daagoo dootuma ko nangu te le 16 nag c'est une audience publique bu leen kenn imposé ne leen yéen amu leen droit dem tribunal ñi fi teew ñëpp nañu dem tribunal audience publique la kenn amul droit ne nit ñi duñu dem moo wax nag ni le 16 mënuñu juger lii de parce que paraparaxe bi ñuy def jaru ko récuser nañu juge bi parce que juge bi mbokk la ci ñoom xarit la ci ñoom li tax ñu tànn ko xam nañ ko juge bi mënul juger dossier bi samay avocat récuser nañ ko na teg dossier bi ñu désigner beneen juge bu objectif le 16 mbokk yi yéen ñëpp na ngeen teel a xëy ñun ñëpp ñu ànd daagu dem tribunal loolu mooy wax ji. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet dara du rëcc ci réew mi.